Mai kokodi kuna adas west. We are you with some and I shoko damit. Yeah, haraboy yo fechal mani. Shoko jai damit. Mam se ni lai mo fechal mani. Umuru damit. Wale se tu sokna sa paradise. sa wata. Atek na kodam. Parce que situation bi mooy mënuma concevoir nga nekk ak sa papa nekk ak sa yaay nekk ak sa sœur ak sa jabar. te leen mën a dund jàmm ci kër gi à cause de kii ndax sa jabar nga bëgg a topp sa nafsu bakkan comme si que ni booy te man xàmmeetuma la quoi nga war a mën a nekk taaw war a mën a joxe un bon exemple booy sant bi ma duggee ci gaale bi damaa rus sa yaay teg fii cin di togg sa jabar teg fii cin di togg léegi nit ñi ci mbedd bi di ko xool nan lañ koy jàngatee booy gis nga li nga def nii amul sens. te dina dinaa la wax benn affaire jàppal na yow nen nga te sa yaay xeer la sax boo dalee ci kawam yow yaay gaañ kon nag li ma lay xamal xoolaatal sa avenir bu baax a baax te xam ne yaa ngi fooy sa avenir. waaye docteur xam nga la laa bëgg nga lijjanti sa suppa kànje ba ma sama maafe est-ce eh. que yaa ngi dégg bu baax ni ma la bëgg a wax booy gis nga sama jabar moom laa bëgg moom tamit man la bëgg. bi ma koy takk pour man la takkalu ma ko kenn takkalu ma ko yaay takkalu ma ko baay takkalu ma ko rakk pour man la man lay séyal su ma diggante moom nag nekk gi mu nekk ni ku mu neexul mun nga jël sa gaz taal ko yokk ko ba mu sës nga toog ci nga xool ku ko yëg booy parce que yaa may dégg bu baax ok fa laa yem. gis nga li ngay def nii amul benn sens waaye booy bi am sens nag jëlal yóbbu. et dégg naa ko sax yaa ngi préparé pour génn seen kër pour dem wuti ji appartement. bien sûr booy bu ma amoon lu ma yóbbee boobu beneen dëkk. génn Sénégal bii. gis nga loolu bés boo ko defee jàppal ne sama diggante ak yow jeex na. woo ndox mu yam fii. mu yam fii amaloo ma benn njëriñ sama jabar njëriñ bi ma amal yéen amaloo leen ma ko na fi yam. lenn rek laa amoon lu may wax bu si wax sax du sonn ndaga moom dafa jël yaayam. jël rakkam jël papam jël jabaram teg ko ci kawam ne du ko mës a teggi loolu problème am la sa ndey ëmb la juróom-ñeenti weer benn fan ñoom xaw koo rey ñu boot la jox la nga lekk jox la nga naan ba nga toll ne sa jabar mun laa xool nga ne yaayoo yaay dangaa indi sa jeeg teg ko si suñu kaw loolu sa problème ne nga da ngay génn kër gi génnal kër gi yaa xam ñu dañoo sonn yow bi nga war a génn kër gi yaa sa jabar moo yàgg yow yaa ñu fat yow yaa ñu sonal yow la may ñu jàpp waay yow xam nga la laa lay yëgee yow gis wuyu ma fii eh! eh, xool la dëgg li mu nga war a xoolaat avenir nga xool li ngay def lan la nga bëgg a topp sa nafsu bakkan ndax jigéen daf lay naqari bébé waaw dama laa soxla yow xanaa boo fekkee ay nit taxaw nga war a mën a nuyoo wala boo ko soxlaa nga bàyyi bañ waxtaan ba pare nga doo ko mën a woo boo bëggee loo jëlee ak koy wër di wax ngay dem sa kër nga jëlee sa kër. chéri chéri yàlla. te yow foo jëm sa xam kooku mënu ma la yëgal man sama morning laa jël si est-ce que dëgg li ma la sama time nag ñoo toog fii ma dem quoi paa bi dafa ma soxla daal xam nii xam naa ne moom ci dóor ma nga jëm tee nga maa dimbali suturaal ma gis nga xale bu jigéen boobu noonu fu nekk dugal naa ko fa woor naa ko whatsapp wuyuwul ma woo ko appel na ma na nga ko sama yoon new ci dégg nga maa déglu satellite bi dem naa fa yow envoyé ba numéro am pour ñu dimbali ma ci mënumaa jël. wiiri wiiri rek jariñ laa. ne joué wuñu musique may na xaalis boo dem ba la kenn grandeur bi nga yor sa biir koñ jox ma sama mooning ma njàpp quoi. këram laay dem day góoma de këram laay dem du ma dig duñ ma tëj prison ndax moom xaalis déglu ma rek dama lay wax këram laay dem mu lijjanti xaalis bi jox la ko. dimbali ma rek kan dem rek ay waay sëñ bi tee nga ma waay ko ko di gën a andaas wees tamit tamit wu yaay yooyu yi xaara boo yow feccal ma soxo jaay tamit mam seeni laay li jaar tamit baab juuf ba

jaaroom xaw ma gaynde bopp gaynde la xaw ma ne nag jaaro formation bi. laay yaabar. déglu rek ma yeggal kii dafa bon. defe nga ne yow man man gracier bi ñu ma waroon gracier xaw ma yokkal ma samay garaat ci digg dëkk bi. kii dafa bon waaye yow. ku ñoom ñi ndaw. man sama xaalis laa jël jox leen sama xaalis ma man xaalis. dañ koo jëloon dañoo demoon tànn bi guddee fa après xam nga nag ko amit tabasan nga maa jox deux cent cinquante mille ma jox ko kii ak jaaroom bi wala ma takk ci seen diri la jox leen ma sama xaalis bi yow dangaa gaaw ci wax nag grand lan moo xew lan moo xew sekk ak ponkal nag moo gën a métti nag moom sëñ bi ah da day wax sëñ bi bu baax tamit doo ñëw fekk ma sama salon ma toog sama jabar ah koo jógee fii ñëw fii toog di tànn beer bi biñ demoon keroog. wala sa loxo yi amoon ndoxum si kii. man dama lay xamal nag léegi sama xaalis nanguñu maa jox sama jox sama xaalis ñii dañ laa liggéey. liggéey. waaw léegi ñoo tey loolu rek moo nekkoon débat bi. nga butéel saafara ngay sangu noonu. maam maa leen ko jox. bu ñu indee leneen sax moo sangoo. te biir bi ko wax. ah. ah mais grand nag loolu. waaw jox leen sama xaalis ma dem. waaye sax waaye dañ ma liggéey. kon tamit ngay bàyyi waaw waaw léegi may ma léegi may ma. di demal di génn ci kii moom liggéey kii yooyu de moom dégg ko baax. waaw ok baax yow xam nga yow xam nga yow. bàyyi ma la xam nga yow. dafa sekkat borom doole nag dafa métti. moom da lay tànc di la def ay affaire ay yëf xoolal. waaw Siri ay waay yàlla tif ay waay yàlla tif ay yàlla tif ay ay ay ay yàlla tif ay yàlla tif ay. du xew kii kan la. Allahu akbar.

sama yaay dem màkkati waxuma ko. dama doon nelaw moo la yéen lu ngeen def fii. bàyyi ma tegal la lépp nu mu demee. lan moo xew. waaw comme ko sa xel ubbeeku na sa bët ubbeeku na bàyyi ma tegal la. xaaral ma génne la léegi. bàyyi ma wax bàyyi bàyyi sa new ci gis nga ñaar ñii nii dañ maa fekk fu ma nekk fële na leen

ak ah, yow 250 mille 150 mille nga moom lépp sutura la saa yi ma li ngay nekk ak yëpp léegi nag moo tax ma jógee suñu kër di ànd ak fu nekk. déedéet moom xëy na moo tax déggoo ma ba pare nga may la lay ñuy wax. déggoo olof ba jógee. grand ñaar la lay jox. pour pour liggéey ma. d'accord grand dinaa la ko fay. suba boo fi ñëwee interview bi dina dina fekk incha allah xam nga yow lan laa lay yëgal benn affaire donc laa bëgg nga xam ko tey bi nekk tey xoolal yow nekkatoo sama kër li ngay def benn sens ma baal la yow dama naa toroxal yow sama dëkk njaboot sama dëkk man sama yaay mun man sama yaay mënutuma ko may dërëm sama yaay bu waxee benn ma ni ko fukk. am naa ci mais mais mais mais lépp ndeket yaa ko def mais pour yàq sama àdduna nga naan ma bëgg ku la bëgg dina la def loolu. di jënd ko xamatuma la xamatoo ma. xam ngeen lan la. suñu bukkee bi ma boo ko takkee rek xam naa ne kat. jëm jënd ci ci ci ci ci yaa nga jëm. yow nekk jubóo jubóo li nga bëggoon tas sama say bu ñuy wax noonu dëgg yow mi yaay noonu sa musóor bi ngay mel ni ku amee rab. <laughs>